sëriñ bi maa ngi yëkkati ak ziar bu ma tibbee ci sama biir xol jëmee ko ci sa jëmm ju tedd ji nuyoo yooyu ak ziar yooyu ànd ak cant ak ngërëm lu doy ngërëm loo xam ni ak cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem loolu nag li ko waral sëriñ bi mooy sa taxawaay bu rafet bi nga am ci biir réew mi ak lépp lu soxal réew mi mu ñëw nag tey ànd ak délégation bi ànd ak sama soxna ak délégation bi ñu ñëw ndokkale si la ci bés bu màgg bi di bésu xadimul rasul di bésu lislaam di bésu yoon wi di bésu Sénégal yëpp ak àdduna bi yëpp ma ñëwaat santati la bu baax na la jërëjëfati ndax sama xol sedd na lool sama xelit yokk na dal bu baax ginnaaw kàddu yu am solo yi nga yëkkati keroog jëmee ko sama jëmm ji keroog ba ngay fàttali taalibe yi ak jullit yi bésu Maam Borom Tuuba bi ñu dëgmal ak waajal kàddu yooyu lu rëy la ci man sëriñ bi maa ngi la koy sante bu baax ndax xam naa yaa ma sa bopp ci say loxo bopp ci tedd yi bëggal ma sa bopp ngir yàlla ak Sëñ Tuuba kon jërëjëfati ci lépp ba tax na faw ma taxawaat yokkoon ci taxaw bi ma taxaw sawet ngir jàppale la ci liggéey bu mag bii ngay liggéeyal Sëñ Tuuba ci dëkk bu tedd bii ak ci yoon wi yépp taxaw sa wet ngir jàppale la ci naal yooyu te bi ñu ci gën a ràññee te xam ne bokk na si li gën a nekk sa xol mooy dara ju mag ji di dara ju kawe ji te université Cheikh Al Khadim ñu fas yéen it euh, nekk sa wet ci boor boobu ndax liggéey boobu sottee dana bëri njëriñ lool lislaam bi bëri njëriñ Sénégal ak Afrique yëpp kon loolu it na jàppal ni gouvernement bi dana nekk sa wet si lépp loo xam ne ginnaaw ba nga sumba liggéey bi def ci lu rëy li ci def lépp loo xam ne si sunu wet la danañ ko mottali bu ci yàlla man lay santaat sëriñ bi ndax ba si ñu génn ci waxtaan bi ak ba mbas mi duggee ci réew mi yaa njëkk a jóg wane yoon yëkkati alal ju takku dugal ko ci mbirum paj mi wane yoon joxe ndigal kon yaakaar naa ne li ñuy wax takkal sa masque ngir jëfe ndigalu sëriñ bi mhm. lu am njëriñ la ci réew mi te yaakaar naa ne bu ko taalibe yëpp jëfee ñu am màggal bu am solo ndax ren ku ne xam na àdduna bi ni mu doxee waaye am na nañu yaakaar ak yàqin ne lépp dina jàll si jàmm ak salaam kon maa ngi ñaan rek ne ñëpp jëfee ndigal loolee ginnaaw loolu nag xanaa fàttaliwaat rek sumb yi nga xam ne tam yëkkati woon naa ko ci dëkk bu tedd bi bokk na si lii di ay yoon rawatina benn bi jëm jóge Mbàkke jëm Kayel te Tuuba Mbul loolu yàlla def na lépp sotti na dañu xaar rek taw bi jeex nawet bi jeex ñu tàmbali liggéey boobu ci wàllu wér-gu-yaram it xam na ne hôpital Matlaboul Fawzeyni liggéey bi sotti na juróom benn ak juróom ñaar téeméeri def tax na mu nekk tey hôpital bu bees tax waaye nag bi gën bokk tey ci hôpital yi gën a xarañ ci biir Sénégal mooy bu mag bu muy defaram incha allah fii ak juróom benn weer de mars la ñu gàttanu ñu inauguré ko boo joxee tur bi ñu si war a def danañ dana jël décret bi ci war ñu créé hôpital bu mag boobu ci Touba nga xam ne bu paree hôpital de niveau 3 la ci Sénégal mooy hôpitaux yi ëpp mandarga kenn dootu war a mën a jóge Touba di wuti euh, pajukaay feneen Dakar wala feneen fanweeri milliard ak ñaar lañ ci def ci suñuy koppar ci hôpital boobule ci wàllu ndox yaakaar naa ni matuwaay daan jël ci màggal jëlaat nañ ko defaraat yam ci ay château d'eau mu nu defaraat yam ci ay forage waaye nag surtout yokk ndax dëkk bi lu muy màggee mooy laaj at mu ne faw ñu yokk la defoon ba tax na loolu it gouvernement bi mën si am nañu yàqin ne euh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy tàmbali ci wàllu étude te ñu ñëwoon wan la suñu yéene bu bu étude boobu paree danañ mën a ñu waxtaan ak ci wàllu ndox mi nan lañ ci amee solution boo xam ne dana nekk solution bu yaatu bu yàgg waaye surtout bu joxe ndox mu sell ci dëkk bu tedd bi la. ci wàllu courant tam yaakaar naa ni làmp yi gis ngeen ko ci dëkk bi waaye ci Sénégal yëpp la loolu dinañ ko gën a yaatal bu ci yàlla àndee. dañu euh, faral di wax lu bëri ci réalisation waaye dafay laaj leneen rek ñu fàttali ne taxawaay bi fi newoon démb tey la gën a dëgër tey la gën a tar si sa wet te loolu kanam rek la jëm incha allah kon loolu moo waraloon kàddu yi moo tax damay yeesalaat suñu taalibe si sa wet yeesalaat taxawaay bi ak taxawaayu gouvernement bi yëpp ginnaaw bi ma la sant bu baax a baax sant njabootu Cheikh Ahmadou Bamba bi fi nekk yëpp euh, di borom ñu sama xarit sëñ Abdou Fatah maa ngi koy tooñ léegi bi muy dugg ak euh, maanaam sëñ Isaaxa si rek ak nag di nuyu sëriñ Basiru Abdul Xaadir mi nga xam ne yaa ngi boole mu yor sa kaddu moom it am liggéey bu rafet bu mu ciy dox ak mboolam jabootu Cheikh Ahmadou bi teew fii ñoom ñëpp ci suñu tur maa ngi di nuyu di leen ziara di leen andil nuyoo ak ziara réew mi ak ndokkalu Sénégal ci bët bu mag bi ñu dégmal di la sàkku ñaan ñaanu réew mi yàlla def fi jàmm yaatal fi jàmm suñu borom it mottali ñu nawet bi nga xam ne am nañ ci yaakaar bu ñëpp muurloo ko ba nga xam ne xéewal yi dana yaatu ci biir Sénégal dañu fàtte lépp lu doon ay jafe-jafe yu fi jotoon jaar kon nag yal na ko yàlla def te boo si ñaanee ñu am si bu baax a baax yaakaar loolu ne doon kàddu ci lu gàtt rek yi ma bëggoon def di joxaat nuyoo taalibe bi nga xam ne moom soxna Maram mu ngi wax si suñu ndax doom pour jottali sama nuyoo waaw waaw mu bu baax di la ziar maa ngi sant bu di gërëm bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin alhamdulilahi allazi hadaana lihaza wama kunna linahtadiya lawla an hadaana allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem sumbul ak naaj wuri jëm am ci lislaam am ko ci yoon suñu borom may ko kàttan ak wér ba lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee ci barke Sëriñ Tuubaa yëkkati kàddu yu nuyoo ak kàddu yu cant ak i ngërëm jëmme ko ci ganam gii di président de la république bu baax a baax dina sant di la gërëm di nuyu itam sa soxna di soxna Mariam Faye nga xam ne ñoom tam sëriñ bi xam ne yitteem ak taxawaayam ci ñoom aku jàppam ci lu yàgg ba tey xam naa dinaa ci dellu si ci kàddu yu ma yóbbante ci yow di nuyu mboolem délégation bi nga àndal bépp te buñ la tuddee rek ñu mën a yóbbaale njëriñ di fàtte waaye ñëpp itam di ay jàmbaar ci biir kër gi di jàmbaar ci seen digg ak sëriñ bi kenn desut kenn ku ci ne da nga ak sëriñ bi rafet na bu baax baax kon nag sëriñ bi wax ne ñu ngi lay dalal jàmm fii ci Touba ci waajtaayu bis bu tedd bi ñu jub si ngir nag sàmmanteeg fi àdduna toll ak fi waxtu yu toll tax ku ne xam na ne bi ñu wul nag ngaa demee ndax mënoo tere dara ba noppi wër ko di ko woote te xam na ne xam na moo taxoon sëriñ bi yónnee ci kilifa yi nga xam ne ñëpp ay rakkam lañ. ñi ci des ñëpp di eh, doomam ñi ci des di ay taal bi mu tam mooy Cheikh Serigne Touba yi xamal leen ne kat tamit ni mu demee tax na moom bu fi toogee rek teewaale na fi njabootu Serigne Touba yëpp ñoom ñëpp itam ñu maase ci xam ne fépp fu Serigne bi nekk wala ko agsi ci ñoom bu ne rek agsi nga ci ñoom ñëpp donte ne kenn ku ci ne yéen nga fa sa ndaw te Serigne bi itam xame na ko noonu rafetlu na ko bu baax a baax kon ñu ci ñàkk mënta tudd rek. moo la yóbbaale ñu jëriñ ñëpp mooy sëriñ Isaaxa Mbakke mi nga xam ne mu ngi fi jotaay bi ak rakkam sëriñ Abdou Fatah Mbakke Cheikh Mamadou Fadil ñu yóbbaale mboolem njabootu sëriñ Tuubaa a yóbbaale ñëpp bis bii nag di bisu sëriñ Tuubaa xam moom moo la yëkkati ngir ànd ko ak sëriñ bi mooy bis boo xam ne dafa rëy ci moom ndax lépp lu am rek ci lañ ko am ndax bis bi. bu Serigne Touba demutoon ci géej gi li mu ko waxee rek kon ñëpp dayoon ci kéefar lislaam far kon nag dafa jot lislaam tax ñu moom suñu bopp kon bis bii lépp lu am ci lañ ko amee moo tax nag sëriñ bi fonk ko lool xam ne sëriñ Touba moo ko santaane woon daa ko jëfal bu fam lépp mu delloo ko ci yàlla wax ne na ko ci ñëpp sant yàlla ba mu nekkee ca liggéeyam bu tedd ba ca nattu ya la ko tàmbalee yéene waxtaan wax ne katabtu yowma sabti inda galwa baada jihaadi wa firaaqi albalwa alhamdulillahi alladi qad raada liyanida wasaaqa li ahraada fustu ladaa galwa wa inda bafali bima ji umiru kulla ma afali mooy ñu màggal mel tey waxaat lay de nawaytu shukrahu ladaa daari salaam waa inda Touba bi gis mi wax na ko fu baree bëri kon loolu mooy bis bi nga xam ni ci la suñu borom jeexal na taw yëpp mbooleem lu mu amee ci la ko amee kon nag Sëriñ Touba ci jikko jikko suñu borom defal te mu wéet ca mooy la ko kenn ci euh, benn commandant de bu nekkoon Jurbel te ñu bëri xam ko mu tuddoon Antoine. l'ESF euh, ci 1918 benn rapport bu am solo ñu bindoon ci Serigne Touba wax ci wax ju am solo wax ne la de Cheikh Ahmad Bamba xutwatun euh, fitriya nee na Serigne Touba suñ borom defal na ko euh, xuba fitriya mais force boo xam kenn xamul fu mu jógee nee na itam topp gi ko nit ñi topp itam jéggi na dayoo ba kenn mënu ko misaal ci xel. nee na jural na leen itam lépp lu ñu leen digal ñu def ko te duñ ko te te te duñ ci xalaat mu ne si Ahmad Bamba ñu nag maa ngi seere ci ñun ne eh, ñu ñu jëkkoon di anbiya ak mursalin li mu màgg màgg ay li ñuy siiw siiw bu ñu dellu si waatoon ñeex Sëriñ Tuubaa ci jikko yi ko yàlla defal nee na bokk na ci jikko yi rek mooy yéene ñëpp jàmm xàllewul ab soppi ak moom looloo waral Sëriñ Tuubaa bis bi nga xam ne ci lañ ko jël natt ko mu jël ne jéggal naa sama loolu yëpp waaw fawtu alil aada yi turoon li ci ñun nafaahum li xëyri sarmadan lastu absuru ba suñu borom itam ne ko bu ma tukkee ba njibisi xéewal yoo ma fa jële yëpp yàlla nga ko jële sotti ko ci mboolem sama askan muy gépp nga xam ne yemaloo ko ci ñu ko yaakaar waaye képp kuy nekk Sénégal rek Sëriñ Tuubaa fàggoo wàllu woon ci biir ñaan mu wax ne lii aw silil lazi uridu wan faay biyal wara yaa mu wax ne yéen am nisfaay kon loolu mooy bis bi nga ñëw tey kon sëriñ bi nee na mu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci sa diggal moom ndax loolu itam li ko waral euh, suñu bo euh, rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xaddis ba ne al abdu lam yaskur nii maa lam yashkur man ajraytu nicmata ala yadihi jaam bi sant ma li fi sant ko jaaware jaam jaaware jaarale xéewal gi ci moom kon nag nee na suñu borom ñi dogal moo leen boole jëkk ñay na ci jataay bi moo itam nekk gutoon ci jataay bi mu gis le am ci yaakaar am ci yow ak cofeel gis sab yar ak say teggin ak fonk gi nga ko fonk te bam na xamee ba liggéey tamit gisutoon lu mas a soppiku ci loola ba yàlla def nag mu nekk jotaayu Sëriñ Tuubaa mu nekk jotaayu Sëriñ Tuubaa bi tam nee na sa yaakaar dellu ko ci moom nee na kon nag mu ngi lay sant di la gërëm di ko seeral taalib yëpp ni mu ko waxee woon ci bi muy woote màggal gi wax na ci lan lan ñoom itam lan lu ma ko sant rek li ma denc sama xol mu ko ëpp. ma suñu moom jàmm ma dara ci fitne du agsi ci moom. loolu nag lépp lu ma ci man ci ñaan ak taxawu ko dinaa ko def kon nag nee na sag cant sa diggante moom ndax li ko waral itam nag ginnaaw bu cofee gi doxee seen diggante moom euh, njabootu Sëriñ Tuubaa ak taalibe yi nee na waxtu wu ne ñun wax ay yitte yu jëm ci njaboot bi nee na bu soñoon nag mu ñuy doxalee sa diggante moom mooy dalay may may jàmm du la du la wax du la wax jënd soxla ndax bëgg nga mën a def sa liggéey kon lépp lu ñu yëkkati teg la ko rek ci yitte njaboot gi nag maanaam loolu nag da koo sant nañ ndax moo ko fi bàyyi ba sañoon njabootam gën a ci seen ginnaaw lépp kenn du ci am dara fitna kenn ku ci ne la nga tamit lu mu ci mën dana ko def. maanaam kon nag cant gi la fi jiitu mooy li mu lay sant ci njabootam gi lu ci ne nga def ca ba def ci réew kon loola nee na faaw cant gi mu dóor ko ba ñun ñu ngi ko seqal ñu ko kon nag nee na ñu ngi lay seere ne la mu la waxoon rek. Serigne Touba mi nga xam ne moom ngay jëfal na nga xam ne jëflante woo kenn ku dul moom moom li ngay jëflanteel nag ne la wóor ne bu la fayee saxul dana sedd te lu weesu itam xam nga ko ci kon yaa dana sam xel dal te sa njort rafet ndax dëkk bi kat yëg ne sumb yére yi nga xam ne def nga ko am na ci yow ci lim waaye am na ci sax yoo xam ne fàtte nga ko lu mel ne trip trente bi nga xam ne mat na onze milliards ak assainissement bi nga xam ne ñu ngi koy def ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne téye nañu ko waaye buñ toogoon di ko lim dana bari xëy bu màggal yi jeexee ba ñuy leeral danañ ko gën a bi lépp leer na ko sant na ci gërëm kon noonu ñu ngi lay ñaan ci yàlla ci barke Sëñ Tuubaa suñu borom doole la kàttan doole la gër gën leeral seen xel ba yéen ji nga xam ne am nga ko ci réew mi ak ni nga bëgg ànd ak ñoom liggéey Sëñ Tuubaa bi suñu borom dimbali la